njëkk gërëm sant suñu mbokk yi bàyyeeku ci euh, presse bi moo xam presse écrite moo xam presse parlée moo xam euh, site internet yi di leen di euh, jaajëfe bu baax a baax ci seen teewaay fii bëggoon wax ni que dama woote tey conférence de presse bi pour mën a wax ci ñaari yëf yu ma yu ma yu ma yitte Euh, yàlla dafa dogal dama nekkoon bitim réew ma xawoon fa sax yàgg tuuti parce que dama fa amoon ay ay rencontre yàlla dogal nag ma ñibbisi démb ma ñibbisi démb ma ne balaa may songaat liggéey gi ma woote presse bi pour mën a waxtaan ak askanu Dakar d'abord ensuite waxtaan tamit ak askanu Sénégal ci ñaari yëf ci njëkk mooy. Euh, mbiru mairie de Dakar mbiru mairie de Dakar di ñaawlu bu baax a baax a baax taxawaayu état du Sénégal parce que mairie de Dakar budget wu mairie de Dakar nekkul budget bu ñuy voté ci assemblée nationale comme ay ministère ñu leen di voté seen ay budget wala ay institution ñu leen di voté seen ay budget moo xam assemblée nationale wala présidence de la république voilà, et au Conseil de la République. budget ville de Dakar ci gàttal yéene la ñuy am yaakaar la ñuy am que fii la ñuy jëlee ay tax pour mën dajale tax yooyu yëpp pour que loolu mën a doon lu ñuy woye budget de la ville de Dakar budget boobu nag lu ñu ciy ñaawlu dafa am benn tax bu ñuy woyee CELVA mooy contribution économique locale valeur ajoutée ku ne valeur ajoutée rek yaa ngi wax waxu TVA ñëpp xam nañ que TVA daanaka ci ay gox yu am ay activité économique foofu lu ñu mën am ay TVA doo nekk ci diggu àll bi dafa am TVA mënul nekk selveya boobu daaw daaw laa wax daaw te yàggul ville de Dakar mi ngi jot trois milliards cent millions ci selveya boobu parce que quatre quinze pour cent wu taxe boobu fii biir Dakar dañ koy dajale te agent yuy dajale tax boobu ñoom ñëpp ay agent wu ville de Dakar lañ ville de Dakar la leen di fay ñoom nag ñuy liggéey perception de Dakar ren nag ñu ne ñoom dañuy jógee trois milliards cent millions wàcc ba cinquante cinq millions nekk dañ koy baaxee waa ville de Dakar ma ne wax dëgg yàlla lii du jaay doole lii du yabel lii du tey lii mooy lu ñuy wooye ñàkk gëm yàlla nit ki nag soo jeexalee dangay ngay ànd ngor soo jeexalee dangay ngay a rafetal lii yëpp jaru ko lu may ñaawlu man ba may egsi mairie de Dakar deux mille vingt et un la woon pour won leen nag nu ñuy xeexee ville de Dakar ci deux mille dix ñoom ñu ngi baaxee waa ville de Dakar lu toll ci quatre milliards deux cent euh, quatre milliards trois cent vingt huit millions deux mille vingt ñu jël loolu wàccee ko ba deux milliards cinq cent deux mille vingt et un ville de Dakar da am cinq milliards quatre cent quatre vingt millions ci même taxe boobu xam ngeen entre temps parce que su ñu waxee. valeur ajoutée rek mooy daanaka lu fi yokk ci ay business moo xam ay restaurant moo xam ay hôtel moo xam ay salon de coiffure moo xam lépp fu ñibbi di TVA ñëpp d'accord nañ que askanu Dakar mi ngi yokku kon askanu Dakar su nekkee di yokku mais à la kuli àll TVA yi day yokk ñoom nag deux mille vingt ñu ne comme waa ji toog na ci mairie Dakar dañ ko jëlee cinq milliards wàcce ko indi ko trois milliards ma ne leen gongo du du du duñu tere liggéey ren nag ñu ne dañ koy jëlee trois milliards cent vingt et un millions indi ko cinquante cinq millions loolu ma bëgg a wax ci leer loolu état su xoolaatulee taxawaayam dama bëgg a wax ak ndaw ñi surtout xale yi am ay bourse fii biir mairie de Dakar bourse mi ngi toll ci trois milliards mooy bu suñuy fay fii ak bu suñuy fay bitim réew loolu dina jafe lool ci mairie de Dakar pour mën a honorer engagement yooyu ñu ngeen xam ne ñu ngi leen di faj ci ay hôpitaux moo xam principal moo xam Fann moo xam CTO moo xam ñu ñu ñu nga xam ne dañ leen di évacuer particulièrement Maroc biig rek maa ngi waxtaan téléphone ak directeur du hôpital bi muy dalal suma xel ci mussa xale bu ñu évacué mooy xare bu jotoon ñàkk yaayam ak ñaari magam yu góor ñu évacué woon ko Maroc pour mu mën a am greffe de la peau mu ne ma Moussa alhamdulilah tey lay génn mais dalal xelam pour wax ko mairie Dakar jël na ay disposition sax pour ñu wutal ko appartement Maroc pour que période bu mënoon a toog Maroc pour def ay testam mu mën fa toog dans des conditions adéquates ak tantam waxuma sax ñu nga xam ne ni ñu ngeen di jox ay bon pharmacie ak ñu nga xam ne ni dañ ñun ñooy fay ay analyse ñoom tamit lii su ci état xoolaatulee taxawaayam dina jafe lool pour mairie de Dakar di mën a continuer di honorer ay engagement maintenant nag du ma wax ci ay waxu ay ñu nga xam ne seen loxo jot seen loxo jot jotul seen ginnaaw ci mairie Dakar la ñu amee yaakaar pour mën a fayal seen doom yi ay école wala mën a fay seen ay lois wala ñoom seen daal ci gàttal mooy lu ñuy woowee les aides sociales waxuma sax ay waxu tamaski korité Pâques ak ñoom seen mais loolu ma bëggoon wax ci leer lii nekkatul politique lii nekkatul xeex nit lii nekkatul xeex ville lii mooy lu ñuy wooye sabotage ma bëggoon nag dalal xelu askan wi euh, ñun dañu fal ngir liggéey Dakar lu may ñaaru rek mooy lu ñu gaayee bëggee xañ yéene bu ñu am ci askanu Dakar parce que ba ñuy politique di campagne dañu wax ci waxu doomu aadama ñu ne dañuy jël doomu aadama sargal doomu aadama fonk doomu aadama yëkkati doomu aadama jàppale bépp doomu ndakaaru bu bëgg a jàng bu mën a dem jàngi bépp doomu aadama bu bëgg a faju ñu jàppale ko bu mën a faju bépp doomu aadama bu am xat-xat ñu mën ko dimbali ci xat-xatam ndax mu mën a dund ville de Dakar mën a yëg ville de Dakar man loolu lay ñaawlu wante su ci yàlla àndee incha allah le 17 février 2024 soretul parce que 17 février 2022 dañu yàlla baaxee ñu ñëw toog fii di mairie Dakar préfet Dakar installé ñu fii ci salle bi kon 17 février 2024 dina def ñaari at ñu ngi fii ci mairie Dakar dinañ def lu ñuy woy bilan à parcours mais ma bëggoon déjà dalal. xelu askanu Dakar mais tamit di wax ak ñuy xeex ville de Dakar ne leen lépp lu ñu am ci yéene ci liggéey tali yi biir Dakar dañ fa fas yéene gën a góorgóorlu ci jamono yi nii ñu ngi ci commune wu Grand Yoff ñu ngi commune u Parcelles Assainies ñu ngi commune wu Médina ñu ngi commune u Mermoz Sacré-Cœur ñu ngi commune u Hann Bel-Air dix-neuf yëpp dañ ko fas liggéey pour mën taaral Dakar sànq rek lañ ma wax ni ni que marché bi approuvé nañ ko donc xam naa fii ak trois semaines dinañ commencé liggéey cité kër góor gi bëggoon tamit dalal xelu askanu Dakar ne leen soixante cinq jardin ak espace public yu ñu fas yéene liggéeyaat biir Dakar te exemple bi mooy su ngeen demee xool ci commune de Biscuiterie ci gox bu ñuy woyee bopp di ngeen gis le jardin témoin loolu lañ ko fasciné dupliqué waat ko dans soixante cinq euh, espace public fii bi Dakar bëgg a wax tamit que le vingt décembre bi mooy normalement semaine prochaine lay def la pose de la première pierre moom mooy nekk le début de la de l'aménagement des terrains synthétiques dans les 19 communes de Dakar. Donc, pour l'Indi Cambérène, foofu la ñuy dooree Cambérène incha allah te pose de première pierre bi mooy nekk le le 20 décembre wax tamit que lii di installation ak aménagement toilettes publiques yi moo xam ci gare routière yi ci espace public yi ci école yi ci garage taxi yi dañ ko fas yéene tamit bu ci des tamit euh, lii di construction CM Cambérène ak construction CM Adama Diallo ak construction lycée arrondissement bu Grand Yoff dañ ci fas tamit taxaw bu baax a baax wax que tamit balaa ñu génn ci at bi dinañ inaugurer le centre de dialyse euh, de la ville de Dakar le centre d'hémodialyse de la ville de Dakar comme vous la savez bu ñu tëjee hôpital Dantec ba tey suñu mbokk yi nga xam ne ni yàlla daf leen nattoo feebar boobu wax dëgg yàlla ñu ngi dund lu metti donc may dalal seen xel fu mu nekk nii xam naa daas bi mu may xool parce que suma objectif mooy góorgóorlu ba lii di dialyse képp ku yàlla nattoo nga am feebar boobu soo ñëwee ci centre boobu nga mën a faju te bañ a fay te yàlla mën na ci def sutura incha allah ah, moo tax may sàkku ci état bi dañu xoolaat seen taxawaay xeex Barthélemy Dias amul solo mënu leen ma xeex ba am daan sama kaw mënul nekk mënu leen xeex askanu Dakar wala xeex ville de Dakar ba am daan suñu kaw mënul nekk xoolal leen seen taxawaay parce que nit ñi dañu sonn nit ñi ci lii lañu yaakaar pour mën a faju mën a jànj mën a gis seen bopp lii dafa ñaaw bëgg dalal xelu askan wi wax leen tamit que lii di suñu yéene bu tabax ñeenti ñeenti centre médico-scolaire yuy nekk ci ñeenti arrondissement département de Dakar dañ ci fas yéene tamit def suñu kéem kattan bu ci des tamit mooy le projet de relamping te su ma jumulee je crois que waa Dakar mën nañ mën nañ mën nañ seede lu may wax tey ñu ngi taal lampi ñu ngi taaral Dakar ci fête de fin d'année yi ñu ba Dakar mën a am melokaan melokaan bu noro doon melokaanu ville capitale Euh, bëggoon tamit wax tamit que dina ñu ngi waaj a réceptionné lii di le pôle euh, mère enfant bon ñeneen ñu koy woy pôle parent enfant mais ñeneen ñu koy woy pôle mère enfant bu ñuy tabax ni actuellement ci hôpital Abass Ndao bëggoon tamit wax ci opital Abass Ndao boobu tamit ñu ngi euh, jublu si construction bi ak installation ou salle bu nar a accueillir IRM Abass Ndao te la commande est déjà faite Euh, wax tamit ci waxu travaux d'extension du champ de GRT de Wakam am na retard naam wante dinañ ko réceptionner incha allah wax tamit ci waxu construction ak aménagement place des cultures urbaines kooku inauguré nañ ko ba pare te bëggoon wax que ñu ngi actuellement song ñu ngi song lii di travaux d'aménagement wu ale Khalifa Ababacar si te suñ ci pare lu ñuy lu ñuy jublu si ci loolu mooy mën a won suñu mbokk yi parce que xuloo xeex ñu jaar ci xuloo ak xeex bu tabax dëkk dëkk bu tabax ko dañ koy waxtaanee dañ koy pencoo suñu mbokk yi nekk ci mbedd yi ñu ñuy woy ay ambulant duñu ay sàcc dañuy daan seen doole wante dañ la naroo won ñu teg seen bët ñu xam ne ni que dafa am ay place pour liggéey daan seen doole ak am ay place pour ñu ñi mën a dem di fa féexlu moo tax ale Khalifa Ababacar Sy yooyu suñ ko liggéeyee ba ñu ñuy teg seen bët ba ñu ñuy d'accord na ni que fii du place pour pour lal ay ay marchandises wala jaay loolu la ñu fas yéene dem defi ci collège HLM suñ fa jógee dem ci boulevard Gueule Tapée boulevard Gueule Tapée mooy jógee place Obélisque dem ba Abass Ndao jógee Abass Ndao dem ba Rue 6 jógee Rue 6 dem ba Soumbédioune il faut ñu ñi mën a gis que dañu am yéene pour tabax dëkk bi te mën a nekk suñ fa jógee dem Parcelles Assainies jëlee ko marché Dior dem pompier suñ fa jógee dugg Grand Yoff parce que Dakar mootul continuer am melokaan bu muy am nii dakaar du mbalit Dakar dëkk la te man dama fasciné ànd ak suma mbokk yu nekk ci conseil municipal toute obédience politique confondue tabax liggéey dakaar parce que bés ci bés yi damay dem ci nettali lay mujjee suma kenn kattan rek lay jéem a def ba ëllëg nettali bi rafet moo tax may sàkku ci mbokk yi surtout ñu nga xam ne ni ñoom la yàlla baaxee ñoom ñoo état central ñu xalaat seen taxawaay parce que ci constitution du Sénégal benn bërëb kese lañ fa lim mooy dakaar ñu ne Dakar mooy capitale du Sénégal fu may daanelee nag mooy commencé nañu euh, pavé grande mosquée wu Liberté 3 moo nekk en face commissariat Dieuppeul ak église martyrs de Lougarda ma bëggoon wax que ci 2024 lépp luy juma mooy grande mosquée fu ñuy jullee les vendredis toutes les mosquées de Dakar seront pavées sans aucune exception toutes les églises et non les chapelles seront pavées te bëggoon wax que après le pavage des cimetières de Saint-Lazare et de Yoff ñu ngi song parking ak mur de clôture yi ñun lu ñu gëm mooy liggéey ku ñu bëgg a xeex xeex feneen wante nga may ñu aafiya ñu mën a liggéeyal suñu askan ak liggéeyal suñu dëkk loolu dama koy ñaawlu parce que ma bëggoon wax ci leer mairie de Dakar kenn fasciné wul sukkandiku ci mairie de Dakar pour financer campagne man toog naa fii mairie de Dakar nekk comme maire dem naa élection législative te ñoom xam nañ fu may waxe jëlewuñu ko fi te campagne nañ ñun soxluñu ay milliards pour campagne. ñun lu ñu soxla pour campagne yàlla baaxe nañu ko ba pare mooy oto essence ak micro jeex na te lan la élection am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur wante norul doon excuse pour ngay xeex ba dugal ay nit ngeen xam ne ni seen yoon nekkul ci xeex jooju mooy askanu Dakar moo tax may sàkku ci président Macky Sall comme nee na nañ ko ko ñaan ci ci ci naka ci yar ak teggin ci njëkk waaw kon nag ci njëkk nag ñu delloolu Dakar moom mooy suñu trois milliards wax dëgg yàlla cinquante cinq million duma ko jël du ma ko jël parce que man je ne suis pas là manger du ma yeluwaan du ma lu ngeen xam ni loi moo ma ko jox kon nag na ko ñëpp déggee noonu kon ren su ñu demee ba état teg tànkam fu mu ko teg te bañ fa bañ ko fa jëlee nañ ko ñëpp déggee noonu ñun suñu projet dañ ci continuer di ci liggéey wante lii di ndaw ñi sax seen école lii di ñu feebar nañu noonu lañ faj ak ñoom seen ku mu neex nag tamit taxaw ne man suma yoon newu ci so yoon newu ci ba bës bu nga ci am soxla te xam naa lu may wax parce que ci dëkk bi amul bës ba ma dul jóg ci dëkk bi ñett na ma meer dama bëgg a jàngi wala suma doom wala suma mbokk wala suma lii wala suma laa amul bés bu ma dul toog ci dëkk bi wala ma nekk bitim réew du ma jot message ne ma suma yaay dafa feebar suma pap suma lii wala suma laa donc képp ku fi taxaw nga suma yoon newu ci ndax lan parce que peut-être bokkuñu gis-gis wala lii wala laa su la neexee nga toog tey ne suma yoon newu ci ba ëllëg ëllëg soretul moo tax na ko ñëpp déggee nu ma ko waxee parce que nag wax dëgg yàlla man mënuma xeex xeex bu ngeen xam ne du suma xeex man lu ma mën mooy artu lu ma mën mooy yëkkati suma baat ak lu ma mën peut-être mooy sàkku ci état bi ñu dellu siwaat seen xel parce que lu ñu def dakaar tey balaa may dee may gis ay candidat ñu ne dañu bëgg doon président du Sénégal euh, ñoom fàtte nañu sax que lépp luñ fi tong-tongee ci suuf bi dakaar seen loxo ngi ci dañu fàtte ne que lépp lu ñu xañ dakaar pour Dakar mën gën a développé wu seen loxo ngi ci yéen ñëpp xam ngeen parce ngeen dégg lii di emprunt obligataire ville de Dakar vingt milliards ville de Dakar dem ba jot vingt milliards ñi taxaw fële yàq signature bi tey taxaw ne dafa bëgg a doon président du Sénégal su ko neexee wante man lu ma gëm mooy askanu Sénégal du ñu askanu mala dinañ fàttaliku démb ak bërki dem mbokk yi fu may daanalee nag mooy ci deuxième point bi mooy ci dossier bu ñu euh, woote fële ci cour suprême ñu ne le 22 décembre dossier wu fusillade bi mooy xeex bu amoon ci mairie Mermoz Sacré-Cœur dañ kay duñ ko àtte ma bëggoon leeral wax ci parce que moo tax may sàkku ci presse bi nañu xoolaat nu ñuy bind nu ñuy xoolaat nu ñuy présenter information bi parce que ci ci dëkk bi malheureusement am na ci ay mbokk yu bëri seen xam-xam demeewul noonu màccul noonu ci mbiru justice donc ñoom lu ñuy dégg wala lu ñuy lii moom la ñuy gëm ma bëggoon dalal seen xel parce que article bu ñu gis ñu ne ah Barthélémy Dias suñ ko àttee ba daan ko ba mu ñàkk dossier bi day ñàkk mairie de Dakar am leen di ñaan ngir yàlla bu leen catu mairie de Dakar fii moom incha allah du fi bouger amul benn justice bu ma fi bu ma fi contredire amu fi benn magistrat mu fi contredire amu fi benn spécialiste wala analyste wala journaliste bu mu fiy contredire d' abord lu ma bëggoon wax mooy cour suprême du ma àtte cour suprême day gestu lu cour d' appel wax xool est ce que lu cour d' wax est ce que ñoom aar nañ suma àq ak yelleef wala est ce que dañ ko saax-saaxe loolu la cour suprême di gestu cour suprême du àtte Barthélémy moo tax may sàkku ci suma xarit yi suñu militants yi suñu sympathisants yi le 22 décembre na ngeen ma dimbali rek te yàlla tax bu leen ñëw suma kër parce que fasciné wu ma dem tribunal bu leen dem cour suprême amul solo man le de décembre mooy la journée de la ville de Dakar ville de Dakar ñu ngi ci foire de Dakar dama fasciné dem sargal fa artisan yi jaajëfee artisan yi yëkkati artisan yi su ma fa jógee taal suma oto dugg ci àll bi dem fekki Khalifa Sall dem dàqi suñu wërsëg wuti ay parrainage kon nag mbokk yi na ko ñëpp déggee noonu le 22 décembre cour suprême day xool dossier bi xool lan moo jot xew ci cour d'appel bi lu tax Barthélémy Dias jël loolu indi ko ci ñoom parce que cour suprême maa fa yóbbu suma bopp kenn yóbbuwuma cour suprême maa fa yóbbu suma bopp ne leen luñ ma àttee ci cour d'appel d'accorduma si mais fan nañu mësee gis dëkk kilifa doon maire ñu fal ko mu nekk ci institution état ñu nekkoon ci contextu la troisième mandat ku mu neex nag naagu ku mu neex naa féq wante dama ne démb démb démb rek la woon te man fàttewuma ku bëgg a fàtte nag fàtte wante ku fi juum laa wax ba dem taxaw buntu pale mais da ngay dem taxaw buntu pale yóbbu ay gànnaay lu la fay fekk di nga mere ku la deful dara ku fi juum ne yaa ngi dem taxaw buntu préfecture wala buntu gouvernance même ñu may àtte ñoom waa cour suprême ñoo koy àtte dossier bi ku juum ba dem cour suprême ne da ngay wër cour suprême yor ay gànnaay lu la fay fekk yaa tooñ sa bopp man dañ ma fekk ci institution de l'État kenn fekkuma suma kër kenn fekkuma suma tool kenn kenn fekkuma ci mbedd gi dañ ma fekk ci institution de l'État mu am drapeau du Sénégal lu fa xew ñëpp ko gis man dañ ma atte kenn attewuma flagrant délit kenn attewuma en civil dañ ma atte en penal pénal lan la loi bi wax loi bi nee na yow yaa yow yaa duut baaraam ne diw moo def lii kon yow yaa noro indi les preuves ne lii moo ko def nii la ko defee ak gannaay bi ci bërëb bi man lu ma def wax naa ko tey maa ngi toog fii mairie de Dakar bunt bi amul katnaar ku mu neex taxaw fii kaas wante dama ne ku fi rep ba ne da ngay ñëw mairie Dakar comme nu gars yi ñëwoon ci mairie Mermoz Sacré-Cœur ngeen xam ne ni ndaanaan a ngi ci ba léegi parce que bakkan gi yàlla moo ko dénk du ma ko fi abale duma ko fi tayle di ko ko bëgg a jël di nga ma wax ban kanam laa la won ba nga may yeb laa wax moo tax ma ne ma wax waxoon ko wax ko waxaat ko mooy je me suis défendu la preuve cour d'appel dañ ma daan na ma yow da yoroon gànnaay te yoroo woon këyit pour yor gànnaay man leen lu ngeen di wax du dëgg du dëgg parce que jox naa leen décision cour suprême bu ma jox dëgg ci atte bu ngeen atte ak ministre de l'intérieur Ousmane Ngom Ousmane Ngom nekkoon ci dëkk bi bëggoon ma jaay doole na ma yow amatoo waa yor gànnaay ma ne ko yow da ngay sa xel yow soo amee gànnaay ma am gànnaay noonu la mbir bi demee ñu dem cour suprême cour suprême ne Ousmane Ngom amoo dëgg kii kilifa la ci ci dëkk bi te kii bakkana mi ngi ci xottu gerte kon nag këyitam da ngeen ko delloo kon nag ngeen ma mën a atte cour d'appel ne da ngeen di ma daan parce que damaa yor gànnaay te yoruma ci këyit moo tax ma daal di jël décision cour d'appel jël ko yóbbu ko cour suprême bu ci des. ñu ne man naa fay njabootu xale boobu te ñàkk bakkanam ma fay leen vingt millions vingt millions ne ku fi dem léegi Bambilor wala dem Kër Diallo Kër Ndiaylo wala dem kam am ci kër dama ne man su ma noree fay vingt millions képp ku toog Sénégal di chômeur soxlawul ngay mbëkk gaal na nga nekk rek euh, nuñ koy waxeeti sax nervi suba gars yi jox la vingt millions loolu fan la am. bàyyi sa jël quinze mille francs pour ñu dal ci kaw nit ki nit ki ar boppam ne eh, ay mbokkam taxaw fële na nañ leen jox vingt millions balaa may leen di jox vingt millions ma jël vingt millions yooyu jox ko SOS village des enfants wala ma jox ko empire des enfants du ma ko def je la le ferai pas na ngeen ma daan autant de fois que vous voulez lu dul jeex rek mooy lu musul am te dama ne dañ def leen neex dëkk bi man am naa yaakaar am naa yaakaar fii ak ñaari weer dëkk bi day changer te su changer ce dossier là il fera l'objet il fera l'objet d'un autre procès on va revisiter le procès et les mêmes magistrats boobaa ils ils diront le droit mais c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire nekk ci dëkk ñu amoo droit aar sa bopp loolu mooy yéen xanaa dem ba wala bërki dama gis lenn nervi ci dëkk bi yor ay fetal ñaata ñi te jot a ñàkk seen bakken depuis les trois ou quatre dernières années là fan ngeen fi gisee procureur woo fi nervi fan ngeen fi gisee nervi buñ fi àtte yéen ñëpp gis ngeen fi ay nervi ci mbedd yi yor ay gànnaay gis ngeen ko wala gisu leen ko kan lañ fi àtte ñaata doomu Sénégal ñàkk seen bakken fan ngeen mës a gis procureur taxaw woote enquête moo tax ma ne ma bëgg a wax ci leer ma lenn rek ma ci jaaxal saay bu ñu waxee élection suba la ñu daal di yëngalaat dossier bi dossier Macky Sall toog na fi douze ans douze ans depuis douze ans mënul vider dossier bi ba may wut mairie de Dakar damaa génn sous préfecture Almadies déposé suma dossier rek rajo bi ne yaay Barthélémy Dias xaw ma lan fusillade tey ñu ne Khalifa Sall mooy candidat man du ma candidat mais dinaa leen wax nag lu tax lii yëpp am te man du ma juum man politique ku ma bëgg a wóor te réveilleras le matin de bonne heure parce que man dama namp politique dañ ma yar ci politique ma xam politique man député la Khalifa Sall candidat heure bu may wax ak yéen nii man pare naa pare naa Khalifa Sall ba pare man signé na na man signé naa pour Khalifa Sall parrainage parlementaire ñu ñuy quatorze députés Khalifa ci parrainage parlementaire boobu mu soxla ci treize députés man mii su cour suprême taxawee ne lu cour d'appel wax moo am Barthélémy Dias amatuma benn voie de recours à moins qu'il un changement de régime dans ce pays et incha dina am te su amee tamit am naa yaakaar que ce procès revisité wante balaa ñuy egg ci loolu. ma bëggoon nag foofu laa bëgg a presse bi bàyyi xel ci lu may wax affaire bi du waxu Barthélémy Dias man nekkuma élection présidentielle candidat te mairie de Dakar même su cour suprême confirmé lu waa cour d'appel wax man je ne bouge pas de la mairie de Dakar lenn mooy am mooy ministre de la justice o passage ma koy jaajëfee di suma tante di maître Aïssata Tall Sall di ko jaajëfee bu baax a baax parce que ci dossier bi bañ may njëkk a àtte première instance moom bokkoon na ci suma abokaay te musuma ko fay dërëm kon nag ku defal lu baax na nga ko ne jërëjëf tey ma ki jaajëfee parce que tey yàlla teg na ko moom mooy ministre de la justice kon nag ñu ngi koy encouragé il faut que moom mu bind président assemblée nationale nekkoo am na député bu ñuy woowee Barthélémy Diaz bu nekk ci assemblée bi dañ ko condamné définitivement dañu bëggoon ngeen retirer ko son poste de député ma ma bëggoon nag wax ci leer du ma fa egg ñoom parce que man xeebuma benn post wante gëm naa ne man passé naa député comme laa gëm te ma leen di ko wax ñoom parce que waxoon naa leen ko bañ may bëgg a àtte nekk gu moon maire de Dakar ñu may bëgg toroxal euh, tribunal ma leen tey ñoo naa tribunal wante dinaa fi dellu comme maire de Dakar te noonu la mbir su leen neexee nag ñu jëlaat seen poste député wante dañ ko déggee noonu je reviendrai à l'Assemblée nationale incha allah comme président de l'Assemblée nationale yàggatul te du ma waxoon def leen leen neex du ngeen yàlla vous n'êtes pas des envoyés de Dieu et vous n'avez une maîtrise sur le destin de personne lu tax may wax lu mu leen di wax nii yéen gis ngeen ay élection yàggul ngeen gis ay mandataire ay mandataire ñu leen di jënd di jël seen signature di ko foye ñoom fu mu nekk nii lu ñu mën a def pour rocci benn député wala ñaar député dinañ ko def teg ci fii yàlla rek a xam luy xew suba lu tax ma leen di wax lu mu leen di wax nii parce que calendrier bi ni mu tëddee calendrier bi ni mu tëddee mooy ñoom le 22 décembre lu ñu woote ñoo xam est-ce que le 22 la ñuy vider ou pas parce que mën nañ àtte le 22 décembre def ko délibéré pour début janvier mais du 11 au 26 décembre mooy dépôt des parrainages au conseil constitutionnel mooy du 11 au 26 décembre du 27 décembre au 28 décembre mooy tirage au sort pour définir mooy ordre traitement au dossier parrainage yi mooy juróom-ñaari sages yi ñoom ñoo koy traité wante bu ci ëpp solo dañu ne du 27 décembre au 12 janvier dañuy gëstu xool parrainage yi ban mooy baax ak ban moo baaxul parrainage dañu wax waxuñu parrainage citoyen waxuñu parrainage parlementaire waxuñu parrainage élu dañu ne parrainage kese ñoom ñoo koy gëstu waaw maintenant yenn cour suprême su waxee lu cour d'appel def baax na ñoom dañ cee confirmé xam ngeen Barthélémy Dias nekkatul député kon Barthélémy Dias su nekkatulee député lu mu pare lu mu pare ne woon Khalifa Sall baaxutul mais c'est que assemblée nationale bu nekkati en session pour mën a installer suma suppléant xaw ma est-ce que xam ngeen fi may waxee am déet parce que man ba may tuut tànk dafa doon ping-pong bëggoon lool ping pong wante man kenn du ma ping pong man damay ping pong mais du ma ping pong moo tax ma ne gaañ yi euh, fu ñu jëm ñun nañu góorgóorlu ba gën a diwoo diwlin parce que dañuy fooye ñoom seen xel lu tax ma leen di wax lu ma leen di wax nii Khalifa Sall bañ koy galgal Khalifa Sall dafa bokkoon ci fichier électoral en bonne et due forme turam nekkoon ci Khalifa Sall bañ koy galgal dafa déposé woon ay parrainage am lépp mët man maa àndoon ak dem si yàlla Idrissa Diallo ak ñoom Babacar Coy ba ñu dem déposé conseil constitutionnel jël suñu ay parrainage lépp baax xalifa Sall bañ kay galgal amuloon à l'époque lu am tey mooy jamono xalifa Sall dañu waxoon le rabat d'arrêt il est suspensif tey ñoom changé nañu loi bi waaye yow ku nga xam ne daf la jaay doole teg ci maa tey nga nekk ci fichier am sa ay parrainage déposé yow rabat d'arrêt est suspensif moom mu jóg nekk nga yow yow mi yow bokkoo kooku su amee sañ-sañu def loolu asamaan lu may wax nii parce lu may wax nii mooy du 27 décembre au 12 janvier actuellement assemblée nationale nekkul session ordinaire assemblée actuellement mi ngi ci session extraordinaire parce que day examiner ay projet de loi ça veut dire que assemblée balaa le 31 décembre au plus tard balaa le 5 janvier assemblée tëj na ay buntam c'est fini kon assemblée même su amee député bu muy démis de ses fonctions assemblée ne va plus se pour am benn suppléant bu mën a dugg man ku ma nar a remplacer mooy suma rakk di suma doomu ndey di nit ku baax nit ku wóor muy Pape Madiop Diop di maire Grand Yoff mais ñoom nañ ma wax boobaa suñ ma daanee na ma lu coup d'appel wax ñoom moom la ñuy dëggal waaw maintenant naka la Pape Madiop Diop di duggee assemblée pour man ma remplacer si parrainage bi moo tax ma bëggoon leen ñaax ñu gën a xoolaat seen taxawaay parce que man dama diwoo diwlin kenn du dem di ma yóbbaale kooku moom du am moo tax kenn duma ma dégg ma tudd ay magistrat du man ak ñoom man xam naa ñu may xeexal wante damay biiralaat lu ma wax damay ñaawlu doxalin bi parce que nga am douze ans pour vider dossier bi yow saa yi bu ñu waxee suba mooy élection rek nga indiwaat dossier bi mais yow ça franchement jusqu'à quand quoi à un moment donné il faut qu'on apprenne à se respecter te ñoom nee nañu à partir nee nañu à partir du 12 janvier dañuy commencer di gëstu di xool pièce su dossier yi yan na ci baax ak yan na ci baaxul nga xam na ni amatoo benn possibilité pour rectifier donc loolu dañ koy wax pour leeral askan wi ñu xam na ni que fu ñu ñi di waxee lu xew dëgg-dëgg ça n'a rien à voir moo tax may sàkku ci il faut vous départir de l'émotion la sensation soyez objectif sur les faits Barthélémy Diaz député pas député ça c'est le cadet de mes soucis moi je vis pas euh, beaucoup moins sore ci wax ji je n'ai jamais touché mon salaire de député il tombe dans mon compte je le redistribue yàlla suturaal na ma donc député ou pas député euh, man soxlu passeport diplomatique ñëpp ma xam maa ngi sant yàlla donc lu nekk ci ginnaaw lii maa ngi ñaan yàlla rek yàlla naa juum wante ñoom xam nañ te xam naa ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit mbokk yi jërë ngeen jëf ah, xam naa j'ai peut-être oublié la présentation du non wax naa ko pare waaw ah, waaw euh, di jéglu rek wante dama doon wax euh, doon bëggoon baaxee ñeneen nit ñi incha allah euh, suba fii ci mairie de Dakar dañu fas yéene sargal le maire honoraire de la ville de Dakar di Khalifa Ababacar Sall ak présentation du livre